tëmu jigéen ñuy wax ci lu xamante ni mooy euh, le leadership féminin face aux problèmes socioculturels muy thème bu am solo ci man lool moo tax tey ma am kontante trop ci invitation bi ngeen ma invité tey balaa ñu commencé il faut ñu wax lan mooy leadership Le leadership mooy yéen ñi Le li leadership mooy suñu maman bii toog tey le leadership mooy une femme qui a confiance en elle jigéen bu wóolu boppam jigéen bu xam boppam jigéen buy jàppale société bi jigéen bu solidaire jigéen bu mën il faut pas ñuy xeeb suñu bop ñun yalla moo ñu dooleel yàlla moo ñu sàggal balaa kenn di ñu sàggal société bi tay moo ñu wàccee lu tax ñu wara nang nangu société bi ñu wàcce te ñun yalla yëkëti ñu parce que yalla daf ñoo yëkëti yalla daf ñoo jox cër

il faut que nous wóolu ñun pouvoir venir parce que nous y allons ñu doole il faut nous gëm ko di tamit ngeen di di ci euh, am exemple suñu nous Nous virage euh, dafa am nous mais mu am kenn nous groupe WhatsApp

am samay diplôme di xëy du matin au soir di liggéey di am 400000 francs yow mi di jël am 600000 francs parce que kooku dafa gëm boppam nit da ngay gëm sa bopp boo xeeb benn liggéey liggéey kenn ko xeeb loolu muy benn mu am ko Facebook bi laa ko gis mu muy photo ay photo mu rafet ma contacté ko mu livré ma jour ma ne yow sa magasin fan la mu ma magasin

financement fi amul financement fi amul déedéet liggéey da nga koy wuti kooku mi di dem di photo di am margem am et pourtant tey am na bu boutique lan moo ko may boutique bi amul financement de dafa dem photo di jaay ci Facebook bi ba yàlla tax tey indil ko wërsëg bu xam te ne am na boutique di tamit ni jaay te amul benn financement donc il faut bi ñuy bàyyi xel loolu di bàyyi xel leneen muy natt bii ñuy def ci biir koñ yi bu leen ko xeeb neen nattal néew doole yi nekk ci biir koñ yi neen leen dooleel il faut ñu am solidarité suñu biir ñuy jàppale gis nga ñun lu ñu song dañ koy daañ suñu solidaire yi suñu biir lu ñu song dañ koy daañ il faut ñu solidaire di jàppalante loolu mooy naar yi tey dama leen di naw ndaxte ñoom dañoo jàppalante seen biir ba tey ñu mën a am lu ñu am ni yëpp suñu biir dëkk lu tax léegi yi kese ñoom ñooy investir ñu lu tax duñu investir

man tey yor naa benn supérette bu xam ne début bi métti woon na lool changé naa plus de 15 fois nit quinze fois su ma toppoon nit yi ñu lay wax ay bàyyil bàyyil bàyyil bàyyil kon tey xëy na tey tey du ma ci sant yàlla tey il faut ngeen xam ku nekk am na lu la yàlla jagleel ku nekk am na yàlla pouvoir bu la jox te loolu yow yaa ko xam da nga war a mën a euh, da nga war ci li la yàlla may nga mën ci. investir dara nga mën ci def dara lu xam ne tey moom mooy jur lenn donc di leen gën a ñaax ci loolu di leen gën a ñaax ci entrepreneuriat yombul nag te di ñaan yàlla tamit suñu sang yi di ñu ci jàppale ndaxte tey suñu toogee ne jigéen euh, entrepreneur il faut tamit nga am xel bu dal il faut nga am xel bu dal kon loolu suñu sang yi ñooñu ci mën a jàppale bu baax a baax te xam ne euh, comme li may waxee duñu lu ñu war a muñ mooy lu ñu yàlla tekki wante lu ñu yàlla tegul tamit dina métti lool jigéen yu ñuy fitnaan jigéen yu ñuy dóor jigéen ñu def naka sut sudul noonu il faut tamit ñu am xel bu dal xel bu dal moo mën a tax ñu mën a def dara luy jur dara suñu amul xel bu dal loolu mënul nekk di ñaan yàlla tamit suñu sang yi gënuñ si jàppale waaw donc loolu tamit lu am importance lool bu baax

gën a gëm suñu bopp te xam ne incha allah suñu booloowee lépp lu ñu bëgg dinañ ko am ci barke yonent bi